ci université Dakar UCAD 2 maanaam euh, jiite ndaje mi mi nga xam ne moom mooy ubbi euh, cours bi ñu war a def fii pour adduna bi yëpp ci wàllu maanaam euh, paludisme sibiru xam nga ne xeex sibiru moom tàmbali nañ ko yàgg na mot na sax cinquante ans di comme ni ko directeur bi waxee fii chaque cours bi nag fi ñu ko doon def mooy en général États-Unis lañ ko doon def yàlla defa def ne ci xarañte professeur Daouda Ndiaye ci aussi li ñu xam ci université Ndakaaru rawatina faculté de médecine moo tax ñu indi ko fii pour la première fois en Afrique ñu indi ko Sénégal Euh, war na dem Ghana après mais loolu dafa wone rek Sénégal moom euh, ci leadership président Macky Sall suñu université yi dañ xam nañ ne université yoo xam ne war nañ fa mun a jàng n'importe quel cours war nañ ko mun a indi fii euh, scientifique àdduna yëpp daje fii jàngal waa àdduna bi nu ñu war xeexee paludisme wala sibiru pour mu joge ci àdduna bi. Sénégal jàmbaar la ci wàllu xeex sibiru bu ngeen xoolee leadership Sénégal en matière de formation ci wàllu jàngale. université bu euh, euh, euh, jàngale daara yu kawe yi ci wàllu xeex sibur ci wàllu xeex sa jàngoro yi bi nga xam ne Sénégal wane na ko bi nga xamee ne Sénégal teg na ko ci table bi ak li nga xam ne état du Sénégal mu ngi koy def pour wane ne Sénégal jàmbaar la Sénégal mi ngi xeex ci wàllu fépp di mettre di teg ci si loxo chercher yi ñu nekk ak ñiy liggéey acteur conditions yi nga xam ne du naam lépp matalewul mais nguur gi mu ngi ciy jéem. scientifique yi ñu ngi ciy jàpp ba tax tey ñu jàpp ne Sénégal tey matale na pour jël ñu jël li nga xam ne mooy première euh, daje ci àdduna ci wàllu cours indi ko Afrique boo xoolee tey dimanche la nga gis ministre de la de l'enseignement supérieur ci ginnaaw loolu doy na pour wane engagement d'un État nga gis ne ki di diriger OMS mi ngi ci ginnaaw ci wàllu siburu ak Harvard ak ñeneen ñi ngi ci wàllu ginnaaw ak ki nga xam ne moom moo yore santé Amérique ci wàllu siburu mi ngi teew Sénégal loolu day firndeel que li tax ñu jox Sénégal affaire bi dafa am fuñ fu leer fuñ ko teg te partenaires yi nangu nañ ci te ñëpp nangu nañ ci donc mooy wane ne Sénégal jàmbaar la ci wàllu lu muy liggéey ci wàllu santé ci wàllu éducation. waaw comme ni ma ko waxee SIGAS ubbi na depuis ñaari at ci at ci ginnaaw ay ay ñu bari jàpp ci waaye bu mujj bi mooy bi nga xam ne kilifa réew mi muy président Macky Sall def na ko ci mu bu am dayoo. ba tax tey ñu mën a daxol looloo tax accompagnement boobu bi nga xam ne encore une fois je le répète nguur gi def na ko ci SICAS da nga gis ministre bi si suñu ginnaaw nga gis waa université suñu ginnaaw moo waree tey SICAS produit Sénégal la li li SICAS doon nag lan la institution yu bëri nekk Sénégal tey parce que ay naa ne tudd ñu SICAS mais am na yu bëri ñu nduroog SICAS yoo xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla àdduna nangu na ko looloo tax tey nag ñu tànn SICAS comme ni ñu mën tànn benn institution pour indi ko fi pour surtout sargal Sénégal sargal Université de Dakar sargal liggéey gouvernance du Sénégal ak leadership du président. am na jéego yu rëy rëy yoo xam ne scientifique yi nga xam ne ñooy borom liggéey ci wàllu science ak ci wàllu ñi nekk acteur de santé ci wàllu fay wér gu def nañ ko boo xoolee fukki at yu mujj yi Sénégal wax dëgg yàlla am na ci ndam lu rëy rëy ci wàllu xeex siburu ndax siburu nekk na naam problème waaye wàññeeku na bu bëree bëree boo xoolee téeméeru nekk ay ñett ak ñeent ñoo fi nekk mooy am nañu yaakaar que ne. Euh, liggéey am na ci solo ñu yaakaar ne jàpp naa ne bu buñ ko toppee noonu Sénégal euh, daal ni ko bëggee ni ko ni ko nguur gi bëggee ni ko ñun ni ñu ko bëggee fii ak juróom-ñaari at yu mel noonu euh, sibiru dina mën a mën a jeex te yaakaar nañ ko ndax boo gisee jàppale bi ñu am boo gisee OMS ñëw taxaw ñu ñëw jàpp si di ko jàppale Afrique suñu réew yu mel nii nga xam ne doole yemul doole bëriwul euh, tubaab yi ñëw bokk ci état jàpp ci. population bi mooy communauté bi jàpp ci bàjjenu gox yeeg relais yi am nañu yaakaar que Sibour dina jeex bu yàggul incha allah Sénégal.